mbokk yi ñoo del si rek comme niñ ko baaxoo di defee saa ne waxtu ne saa yoo xamee ne gis nan ma dañu xew ci réew mi rawat na ci yoonu murit mais nag tey li ñu àdd mooy lislaam ju ñu bokk muy yonent bi ñu bokk mbokk yi xew-xew bi nga xam ne moo xewoon fële ca place de l'Obélisque muy fële ca Colobane muy xew-xew bu rëy di bis bu Sénégal marqué bis bu diine marqué bis bu l'islam marqué bis bu am solo ñu ni yaakaar fii ci réew mi ñëpp teew fa ñu mënta teew yónni seeni njaboot ak seeni taalibe ñu teew pour lan pour wane kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu allazina kafaru sufla lu mën a xew dëgg rek kay mujj lu mën a xew yàlla rek kay yàlla lu mën a xew tappale yii ak wuruj yii ak yii ci suuf ak dóor martu yii yàgg bi yàgg ci suuf rek la jëm yooyu nag moo ko waxee di ñu xam ne ma jublu muy lobi li ko dala ci faramason yi muy ñu jiite woon maam yi Macron mi def lii doomu raam la ay maam yi ko jiite woon ak baay bi defal lii ak ñun suñ jiiti bopp yi nga xam ne ñooy président yi fi jiitu woon te jamonoy mille mille neuf cent soixante et ba ñu fi ne tey benn marque la bu lu yi amee doole rek ñoom ñoo ko may doole bis dina ñëw ma leeral leen ah ba sedd fa mu commencé ba fu mu yem ñu xam ni kenn ku ci ne ci ñoom da ngaa rawat ne kii fi nekk nag tey di président de la république bii nekk Sénégal tey moom moo ci moo lay gën dooleel ñu am benn jàngat buñ ñu jàngat fële ca place de la nation la tax jàngat man fa jàngat mooy mbokk yi nañu xam ni li alquran waxan leer na naññ tey muutu bi xay sikum dee leen ci seen mer sunu borom yëkkati nay mbiram te kenn mënatu koo fay moo tax alquran wax na ko yonante bi sallallahu alayhi wa ni ko maa yuqaalu lakk illa ma at qiila rusulu min qablika lu la waxan rek wax na ko gaa yi la fi jiitu woon waaye nag tey lii de wane ni li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ñun ñooy ay mbokkam mbokk yi loolu fees na loolu leer na ci lii xew fële ca Colobane moo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi jóge albaqiya bu yàgg yonent bi taxaw ni leen ak neexoon ma gis sama mbokk ya saxaaba yi ni ko yaa rasulallah noonu ixwaanuka ñun ñooy say mbokk mu leen di déedéet bal antum asxaab yi yéen du ngeen samay mbokk waaye yéen yéenay samay saxaaba neen ko yonent bi kon yan mbokk ngay wax ñoo xam ne yaa ngi naa bu ma leen gisan day ak neexoon ma gis leen saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi saxaaba yi ñooñu day mooy ñii ñëw sama ginnaaw nga xam dañ may gëm lool bëgg ma lool wóolu ma lool te suñu maa gis ñooñu ñooy samay mbokk mbokk yi ñooñu ñooy ñan mooy ñun ñii mbokk yi mooy sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin mbokk yi loolu la yonent bi wax yonent bi daal di yi ñooñu day muy ñii ñëw sama ginnaaw te gisuñu ma dégg rek leen am ci man nee na kenn ci ñoom koo ci noon boo joxee li nga am ci àddina sa alal say bien lépp di nga gis yonent sallallaahu alayhi wa sallam nee na da leen koy jaral mbokk yi xoola tey askan wi ñu ngi tudde seeni doom Seydina Muhammad ñii ngi jóg bu ni siyaara ji bu ni aji màkk sax bañ nañ ko ba dañ naa ñu ngi siyaara ji yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ana diw nga ni moom da day siyaara ji bi ren te day aji màkk kat waaye bëgg buñ bëgg yonent bi moo tax ñu wax loolu ñoom mbokk yi kon la yonent waxaan ne ñun ñooy ay mbokkam loolu fis na waaye bu mu dakkati ba kar yomal xel ak ba taxaw lu ñu fi teg ñoom lobby yi lu ñu fi teg ñoom politiciens yi nañ ko dajji teg na le ak ko ànd ak ñoom na ak koo mën a doon mbokk yi alquran dañoo waxaan ni maa kaana li muminin wala muminatin isaa qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul xiyara yàlla nee na maa ngi Muhammad lu ñu décidé ba ni lii war a am nee na amul keneen koy tànn wala kuy kuy wala ku naa lii war am déedéet kon mbokk yi li yàlla wax yonent wax ko loolu rek muy dëgg ci loolu la di jaar ñun ndax loolu ci la suñu yaakaar yi nekkan ci réew mi jaar ku ci mel si Amadou Bamba xaadul sa suñu yaakaar ak ñeneen mag ñi fi nekkoon mii ñii ñuy wooy ay kilifa yi aada laa wax duñu tus duñu dara yàgg naa ko wax li ko dale ci président de la ministre yi mu àndal ñi nga xam ne ñu goree di lan ànd nag ay nit ba nit ña wóolu leen ñu daw ñëw ci état ak ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu benn politicien laa gis ci place de la nation benn politicien muy ku ne Ousmane Sonko moom rek laa fa gis du ma ne nañ des ñëwuñu waaye man gisuma leen te bu ñu ñëwoon dañ leen gis ni ñu gisee Ousmane Sonko foroluma Ousmane Sonko ënduma ak moom yaakaaruma ko ci benn côté man benn buur laay jaamu yàlla benn yonent laa xam muy moom. mooy ki xam ne mooy sama yonantu donte ñëpp la ñu gëm muy Seydina Muhammad kenn laa yaakaar ci àddina muy Seyxuna fi Ahmadu ma Xaadimu soon du ko neen ak koo mën a doon nag bu la neexee tey suñu digganteem fi mais nag lu ma gis te muy dëgg danaa ko wax Ousmane Sonko rek lañu ñu gis mu ànd ak nit ci xeex bi ana président de la République ana ministre yi muy àndal bu màggal Tuubaa ñëwee bu gàmmu amee nangam ak nangam kenn ku ci ne ci ñoom ni diwéy sama sëriñ diw laa yaakaar diw laa yaakaar ñooñu naan ñooy sama sëriñ ñoom ñëpp yonantu bee seen sëriñ lan moo tax ñu wooteel yonantu yi président ne xumm fam nekk jugul dem kon xam ngeen ni te fii lañu Charlie Hebdo def li muy def mu jóge fii ci Sénégal ak France waaw ah, damay laaj damay laaj këram gii nga xam ni moo nekk Mermoz wala kër wala kër gee di Palais ak place de la Nation muy Colobane ak këram gee di pale ak France fan moo gën a jege fan moo gën a jege mbokk yi moo na ba France wootee de daa wuy ji ñun ñu wootee yonent bi fii ci Colobane dong mu lànk toog fu ko teg fan la ko teg moom président république ak ñu ànd ak moom mbokk yi nañu xam ne ay tappale baaxut lu wér mooy ne ci dëgg buñ ñu nax ñu ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi koy doxal saahiran wa baatinan ña ngi ci guddi ak bëccëg waaye itam bu leen fàtte ni moomu moom day képp koo xam ne nee nga gëm nga yàlla te gëmoo Seydina Muhammad la nga wax ay tappale rek la du dëgg jullit buy dugg ci lislaam dana wax ashadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah doog a nekkub jullit loolu nag ngëm dëgg da koy wax saw làmmañ gëm ko soxol mais say cër di ko jëfe kan moo fa war na jiitu tey président de la République woote kan moo fa war na jiitu amut kenn mënu ko fa war na jiitu moo ñu mu àndal ak ñi woote ay ay moo tax ma yàgg wax ne dañ leen di ndax nañu gëm yàlla gëm yonent bi gëm suñu maa ngi baax ci réew mi leneen lu ñu waaye woo ñu lànk politiciens yi nañu leen boycotté teg leen nële buñ leen lijjanti la alxuraan waxan ca ba yonent bi waree gàddaaya makkatal mukarram madinat munawwara wa iz yamkuru bika llaziina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llaah toujours gaa yaa ngi fexe waaye ñoom ña ngi fexe ñoom ñi nga xam ñooy lobby yi mais seen fexe moom dana naax saay leen leer ne tey président bu taxawoon fii dina leer Macron doo ko gis te doom la ci Macron sët la ci Macron Macron mooy baayam loolu rek la mooy bàyyam damay faral di wax ne Sénégal booy xool amul président am ministre la am France mooy président ba muy ki jiite France ki nekk Sénégal premier ministre la ci président France kon nan lay dénoncé yu bon yi nga xam ne président France moo ko def ak ñi ànd ak moom mbokk yi mënu leen a fexe fexe fexe ba ngëm yàlla dañ ci nit ñi mën leen a fexe fexe fexe ba yàq suñu doom moo tax jaaraama parents yi yéen ñi dugal seen doom yi Seydina Mohamed alxuraan wax na ko yaa ayu lasina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi ne ngir gëm ngeen yàlla fexe leen ba fegul seen bopp sawara ba du ngeen ca tàbbi waaye fexe leen ba du ngeen tàbbal seen njaboot sawara nan lay def ba duñ tàbbal seen njaboot sawara éduquer leen éducation islam jàngal leen yar leen yarub diine xamal leen diine xamal leen kan mooy seen yonante bu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu loolu paree ma wax ci tuuti ci góor jigéen ñi góor jigéen ñi fan ñaar fukki nit ak juróom yu ñu jàpp boo toppee information yi ci li ñu gëstu juróom-ñaari nit lañ ca tëj ñi ci des ñëpp dañ leen a bàyyi ñu moo li ma leen waxal léegi ci question bi journaliste France bi laajoon suñu président ni ko ndax Sénégal am na plaidoyer pour góor jigéen dafa def manifestation di dox ci mbedd yi dem te kenn du leen laal président ni ko am nañ ci plaidoyer sa livre la wax am nañ ci plaidoyer mu ne ko ndax kon askanu dal seen kaw mais état moom dal seen kaw loolu dëggal na ko ci ñi ñu àtte barki démb ñaar fukki nit ak juróom juróom ñaar lañ ci tëj man ma yaakaar ne leen tëj ay juróomi at juróom benni at jàpp fukki at ñu ne juróom benni weer leen tëj mooy dégluwaat mu gëstuwaat information yi ñu ni am na ñoo xam ñetti weer leen tëj mbokk yi lii est du dooleel góor jigéen mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon bu ngeen nee ba mujj jamono sàngara rek saaroo njaalo day bari góor jigéen day bari waaye tam ak maanu day dem mu ne di ngeen dem ba topp yahuud yi ak nasaraan yi sibran di sibrin di ngeen leen topp ba bu ñu duggoon ci paxu mbëtt sax ngeen dugg ca yéen jullit yi mbokk yi kon nanu gëmaat sunu yonantu nanu gëmaat mag ñu baax ñi waaye itam nañu xam ni la yàlla déele woon ak lu mën a xew dëgg rek kay mujj dëgg rek kay mujj réew mii nag la fee ñu ngi dund di nooy lu fi waaye def ci lu dul dëgg den ko dénoncé xanaa bisuñ faatoo ñëw bu nu baqee loolu rek laa amoon lu may wax.